mooy am na dellu ginnaaw bu wér bi nga xam ne am na ci wàllu àq ak yelleef am na ni ñuy foowee li ñëpp bokk te mooy institution yi benn nit ak ñi mu àndal jàpp na ko di ko jëfandikoo jàppee ko jumtukaayam au lieu mu liggéeyalee ko askan bi mu ci régler ay comptam lii ñëpp seetlu nañ ko tamit ci réew mi li am soo te génnee ko mooy ñu mën a comprendre ne lii mag yi nekk di def yëpp tey jii moo xam jàpp nit yi di foowee seen liberté la moo xam tëj ay tele la moo xam fitnaal ay ay homme politique la moo xam xuuxal société civile bi la moo xam euh, jéem a faggaagal doole bi réseaux sociaux yi am ci jàpp ñenn ñi nga xam ne dañu fa fës dañu fa am kàttan lii yëpp benn plan kese mooy base bi il a un plan bi nga xam ne lii muy def ay ay conséquences su plan boobu kese la li suñ ko comprendre rek on aura vraiment bien compris la démarche aujourd'hui de du président Macky Sall léegi gii foog naa wala wala Aliou Sané mu ngi wax naan dañuy jàpp nit ba pare di ut luñ koy reproché maanaam bañ lay jàpp sax xam nañ lay toppee lii mën naa ko seede fii jàpp gi ñu mujj jàpp ñun ci weer yi ñu waas ñu weesu Euh, dikk moo ñu convoqué convocation bu hasardeuse ñu dem dikk bañ ñëwee toog question yi lieutenant bi ma doon auditionné joxuma man ay question dafa doon toog jox ma question ma jox ko sama tontu mu ne ma même ma dem jëli benn question mu génn bureau bi yéeg dem woote jëlaat benn question ñëw jox ma question bi ma ree tontu ko question bi pour dire que on m'a questionné au la de la police et loolu moo extraordinaire et ni ñu formuler question yi le vrai magistrat moo joxe question yi le commissaire joxewul woon question yi et lii c'est c'est ñu dem ba egg niveau bi nga xam ne lépp lu amoon solo ñu bokk ko muy police muy tribunal euh, lépp dañ ko mujjee ñàkkal solo ci biir réew mi mënuma ñàkk ñëw ci euh, ki nga xam ne tey sax moo ñu dajale muy Hannibal waaye euh, pour ñëpp sax déjà man tam moo ko woowee Hannibal dama koy woowee Anila Anila mooy sama jëwriñ fële ca Canada ndax Hannibal baat bi phénicien la buy tàb buy buy tekki ki nga xam ne dafa am teraanga yàlla bu ñuy wax Baal c'est un c'était un un dieu phénicien man nag Anéla laa koy wooyee ndax euh, nit ku baax la. pour ma fàttali Sénégal cagnotte bee ñu mujjee woon def jamono imam ba dara ndaw bu feebaree ñu amoon yéene ak xalaatu génnee ko Sénégal faj ko kii dajale ñu fay tey muy Hannibal moo taxawaloon cagnotte boobu. moo sonnoon pour ñu dajale xaalis jéem a yóbbu imam Alioune Badara Ndao faj ko mu jalal ko mu bàyyi liggéeyam bés boobu jour ouvrable la dafa bàyyi liggéeyam pour mën a toppatoo cagnotte bi ndax cagnotte bi ça lui prend du temps ak ay coordination c'est juste montrer rek ban nit la ñuy waxtaanee tey ci générosité am ci attention am ak ci bëgg taxawu doomu aadama taxaw boobu mu taxaw imam Alioune Badara Ndao lu lu la li xame waa kër imam duñu dañ di ko ñaal ba tey kooku la Macky Sall jàpp tey kooku lañuy jàpp ci ci benn ci am ci sans preuve euh, di ut ay preuve ba bës bu ñu ko jàppee bii police ñu ngi ut ba tey ay preuve di ut la ñu ko war a toppee may ñaax nag ndax wax dëgg yàlla l'essentiel a été mais man damay ñaax nitu diine yi fii ci réew mi ñi nga xam ne ñu ngi tënku ci diine surtout diine l'islam nga xam moom laa gën a xam dafa am leen li xam bu ñu fa tolloo diine moo ñuy interpeller ñun chaque fois ma fàttali ne diine l'islam diine bu révolutionnaire la ñu dañoo gëm l'islam est une révolution permanente chaque instant elle a des défis qui l'interpellent elle a des réponses claires yi nga xam moom la koy jox moom euh, yonent bi dafa lu mu jàngaloon jullit yi dafa ne woon képp ci yéen ku gis li nga xam ne du yoon na jug jéem ko soppi na ko def si si loxoom maanaam na jëf pour que ça change su jëfee changé wul na ci wax pour mu soppeeku bu jëfee ba pare wax soppeekuwul nen na ko mettit lu xam loolu mooy le plus moins mooy moindre degré ci biir iman kon juuj bi toogloowuñu ko yu bëree ngi wax naan juuj dafa war a toog daa war a war xeex war ñu marche jullit islam toogloowu ko islam daf ko jëfloo daf ko xeexloo ci lépp luy dëgg ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak mboolem yonent yi benn xeex la ñu porté woon ñëpp mooy fexe ba ñu wax taamuruna bil maaruf wa tanhawna anil munkar maanaam fexe digle ak jàngale la convenable waaye tamit blâmer et condamner maanaam li nga xam ne du yoon lii mooy la mission de tous les prophètes lii mooy la mission de mboolee mi kilifa diine nekk Sénégal des fois damay dégg gars kilifa diine yi wax kilifa diine yi soxlawul ñuy wax yàlla wax na lépp ba pare xaaruñu leen pour ñu wax yàlla wax na lépp te yonent bi sallallahu alayhi moo jàngale lii yàlla bëgg lii la seen maam yi nekkoon donc ñoom ñuy wax ak ko wax ñun ñu ngi déglu seen maam yi te gis nañu résistance bi doon def si biir réew mi may gis te jamono bii ba ci démb ay ustaas yi ma doon wax ne ma non marche ñun du yoon war ñu dem marche la fa ngeen teg war ñu dem ma non ñaari mbir moo tax ñun bu ñu dem marche déjà un nguur yàllaa koy joxe kon yàlla ku mu jox nguur ñu war ñu koo xeex ndax yàllaa koy joxe ma leen macha allah li wax dëgg na waaye yàlla bi joxe nguur moo ñu xeexloo injustice fàttalikul ni euh, firaw na yàlla moo ko jox nguur waaye yàlla moo wax Moussa ne ko izhab ila firawna innahu taxa demal si firawna mi nga réglal ma ko ndax il commence à semer le bordel sur terre donc yàlla dafa mës a jox ndigal ñépp ñi nga ne ñoo nekk si jamono ne leen xeex leen l'injustice ak tooñ ak ñaawteef ndax mën na andi musiba ci kaw suuf dañu fàtte ni yàlla ba muy andi nit si biir suuf sax malaaka yi dañoo institution ne ko xanaa da bëgg yóbbu ci kaw suuf ku koy yàq ku fay xeex ku fay tuut deret yàlla leen xam naa loo leen xam donc argument bi wax ni yàllaay joxe nguur kenn warul xeex ku ku am nguur dama ne argument boobu teguwul ci dara kuy woote kilifa diine waru ko wax dëgg yàlla. Euh, may fàttali ne mbooleem yonent yi mbooleem nit yu baax yi jamono bu mu mënti doon nag amu ci kenn ku mës a wan ginnaaw askanam farek ay buur musul am ci jamono. musta am ba suñu mag yu baax yi fi nekkoon ñoom Cheikh Omar Fouti ñoom Cheikh Amadou Bamba laaj amul musul am ci jamono ñaareelu fausse allégation bi xam ne ñu ngi koy wax. mooy kon ñoom ñii naan nitu diine dañuy condamné nit yi dem si ay marche ne marche yi fi xale la war ñu dem ci marche may fàttaliwaat encore ne première marche histoire humanité yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko def ba ñu toogee daarul arqam ibn abil arqam di làqatu boobu diine bi nekk une minorité ci biir Quraysh dem nañ ba jamono bi nga xam ne mat nañu ñeent fukki nit ci Umar ibn Khattab ba mu ñëwee dugg ci biir islam Umar ibn Khattab laajte Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo nekk ci dëgg wala waa Màkka ñoo ci yéen sa sam ne ko ñun ñoo nekk ci dëgg mu ne ko ñun amuñu droit làqatu ñoo war a génn kon manifester suñu ngëm-ngëm lii mooy premier marche istoire bi nga xam ne jóge nañ Daarul Arqam di dem Kaaba ga ñoom ñëpp àndandoo ñuy zikkar di naan di naan yàlla kenn la di wax laa ilaha illallah di naan allahu waahidun ñu siy sànni xeer ay saaba di ci toj ay kanam ñoom Abdullah ibn Mas'ud ak ñu bëri gaañu si ñuy protéger yonent bi sa mu nekkoon seen digg yéeféer yi jël ay xeer leen dóor ba ba di egg màq donc kon taxaw tamit sous le de la religion di wax ne marché daganul wala marché amul da ngeen juum man jàpp naan sax du du ñàkk du du du du du mauvaise foi mais ñàkk xam la. marché wax dëgg yàlla islam mësta nekk diine bu toog bàyyeeku islam diine révolution la diine résistance la diine xeex la diine rétablir l'ordre de Dieu sur terre la diine bi nga xam ne mënul ànd ak ay compromission wala tappale donc lii wax dëgg yàlla. lu baaxoon la ñu fàttali ko mbokk yi te leen woo nag ci marché bi xam ne mu ngi am la 15 bi bi xam ne ñu ngi ko amal le prétexte nit dof la waaye waaye ñoom ñëpp ñuy jàpp euh, les prévenus politiques man du leen sax wax détenu ndax defuñu dara te kenn attewu leen ñi ils sont séquestrés abusivement illégalement arbitrairement maanaam lii dafa dafa dafa dafa dafa dafa xeeblu lu xeebu la ci Sénégal ñu toll fii tey jii aujourd'hui euh, ci 2023 may fàttali ne dëkk yu am solo yoo xam ne ñoom ñu ngi waxu ko démocratie ñoom dëkk yooyu ñoom ñu ngi toog aujourd'hui am sax ay loi sur les lanceurs d'alerte la la république essaie de protéger ceux ñi nga xam ne ñu ngi xeex di sonn pour joxe de la bonne information sans contrepartie pour yëgal opinion afin de préserver l'intérêt général maanaam loi bi wax laa loi sur les lanceurs d'alerte dans tous les pays yi woowee démocratie fa am fi Sénégal képp ku lancé alerte wala ngay fësal wala feeñal li nga xam ne ñoom ñu ngi koy nëbb ñoom saay-saay yi jàpp la dëgg la ñoom Boubacar euh, ñëpp ñoom Guy Marius ñun ñii ñëpp dañuy wax diffusion de fausse nouvelle euh, tappale euh, sosal la jàpp la tëkk la donc kon wax dëgg yàlla Sénégal fi mu toll aujourd'hui dafa nekk si benn selebe yoon bi nga xam ne fii lay jaaree jag ba faw wala mu jaaree fii ndërmeelu ba faw di nag taxawaay la laaj taxawaay boobu nag dañ ci war a jiital suñu borom xool suñu àqulaay taala xool ban Sénégal la ñu bëgg jox suñu ay doom ak suñu ay sët ndax Sénégalu des personnes couchées ay personnes yi nga xam ne mosuñoo xeex pour dëgg dañoo bàyyeekoon toppatoo seen bopp ndax ñun ñuy toog fi yëpp on peut le faire wax dëgg yàlla moo nañ toog dañuy toog suñu bopp ak suñu famille am nañu liggéey am nañu ay njaboot gars yi gënuñu gënuñu tab jamono gënuñu euh, occupé on a des choses à faire waaye dañoo xam ne jamono bu ne am na wareef bu ñu war yàlla am na lu ñu teg même sa sam jàngale woon sax ne ne man lam tam bi am amril muslimina falaysa minhum képp ki nga xam ne mbiri mbiri sa mbokk yi ñi gëm ñi muy jullit muy musulman di chrétien seen ay problème bu la interpellé wul c'est parce que bokkoo si ñu gëm ni donc ñun nag bëgguñu ñàkk bokk si ñu gëm dañoo bëgg taxaw di xeex pour di pour pour dëgg ndax yàlla mooy dëgg yàlla mooy alxaq donc mënoo ñàkk xeexal dëgg te dëgg nag mënul nekk ñaar am na fu ñuy toll ci biir dëkk il faut kenn ku nekk affirmer sa situation et sa position euh, ñun nag on comprend am na fi ñu bëri jamono bi tey il sont très mal à l'aise pour mën a pour mën a pour mën a farak askan bi ndax dañoo bokk si ñu complot wor askan wi ndax dafa am ay jouissance ak ay privilèges yoo xam ne képp ku ci état dugal wax dëgg yàlla mënutoo jéem a xool nu ñu war discuter waatee la système ndax tu profites du système instant boobu. quelqu'un nag bi xam ne dafa toog di njoowaanu euh, ci benn garab képp kuy wax waxi dagg branche wala dagg xob ci garab boobu dafay jug xeex ndax instinct de mooy njëkk wax. ñun kon nañ comprendre te ngantal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi jéem a xool nu ñu préserver ce système mafieux qui nous tient en otage depuis des décennies waaye système bii nii képp ku ràññee tuuti xaw a am xel mu la di xool war nga xam ne système bi mu ngi waaj a jeex mu ngi si ay dernière heure am aujourd'hui képp ku ràññee te am tuuti xel war na comprendre mbir mi du question wu Pastef du question frappe du question wu société civile wala question diw wala ba sàmba lii révolution bi xam ne yàlla moo ko tabbil ci xolu jaam yi ñu koy doxee ñëpp di yëgandoo même chose te te te concerté wuñu révolution bi ala kulli xaal day sotti cool nag mooy bu ñu ko encadré wul ñëpp taxawandoo àndandoo diisoo ci day mujj nekk benn benn révolte kese te ñun soxlawuñu révolte on a besoin d'une révolution constructive révolution bi nga xam ne suñu bëgg-bëgg mooy elle doit être pacifique ndax ñu jàmm moo ñu a lu ne diine bu ñu bokk sax diine jàmm la woote su suñu nuyoo sax asalaamaaleykum la mooy ne jàmm nekk ci yéen kon ñun jàmm ñoo ko bëgg ñoo ko a bëgg ku ne waaye nag ku ñuy jaay ay ñun ñoo la war a gën a bëgg ay tamit ñun suñu suñu suñu suñu suñu mbir jàmm la waaye ay la tamit donc aujourd'hui nañu xalaataat révolution bi nañu xool sur les questions yu am solo et foofu laay rejoindre gii ak initiative moom ak ñoom Aliou Sané aujourd'hui urgence la waruñu nangu Macky di ñu di ñu di ñu di ñu di ñu di ñu tardel ci ay détails yi nga xam ne daf ñu bëgg daf ñu bëgg occuper chaque fois libéré diw libéré diw libéré diw c'est vrai que agenda bi xam ko ignorer on doit s'inscrire dans cet agenda-là pour exiger libération du tooñ waaye coow li mooy y a des choses extraordinaires yoo xam ne maanaam 2024 bi ñu jëm ñun lan ci bëgg ñun xam nañu Macky Sall du bokk man loolu werantewuñu ko amuñ ci sikk sàkk on n'a pas besoin Macky Sall pour pour leeral position on n'a pas besoin la constitution est déjà claire te ñëpp jàng lañ ko donc débat sax di xaar ay Macky na wax ak Macky soxlawuñu mu wax Macky na gaaw te jóge fi te dañ koy atte dañ koy atte ndax mënoo def n'importe quoi dans ce pays pare kenn lu àtte chaque fois ma fàttali ne aujourd'hui fi ñu toll nii en Guinée les le procès du 28 septembre mu ngi daw on a convoqué ñëpp ñuy kilifa Guinée yi président bi lañ tàmbalee muy Moussa Dadis Camara dañ ko dem fekk ñu ba Burkina jàpp ko ki doon gérer gendarmerie Moussa Thiebro Camara mu ngi ci biir kaso bi ñi doon gérer l'armée ñoom ñoom colonel Pivi ñoom colonel Kalonzo ñii ñëpp ñu ngi si biir pro bi leen di àtte ci ministre yi dañoo dañ leen jàppale di leen atte ñoom Tumba nga xam ne mooy mooy mooy mooy waa Sénégal Tumba waa Sénégal yëpp supporté ñu ngi koy atte donc 28 septembre pour pourtant ñii yoruñu woon arme dem ci stade bi tiire ay Guinéen waaye ñoom ñooy responsable service su état bi xam ne ñoo commandité euh, massacre bi am euh, en Guinée ñii dirigé aujourd'hui Sénégal moo xam la gendarmerie la moo xam la police la ñii ñëpp nañ comprendre ni ils sont aussi responsables nag de tous ces tueries yi nga xam ne ñu ngi am ci biir Sénégal et que dañ leen di atte ñoom ñëpp nag du ñu atte Macky bàyyi leen ki géré gendarmerie ki géré police ñëpp ñu rey seen loxo takk incha allah wallahi loolu loolu défi la loolu suñu engagement la il faut rendre compte ñëpp nañ ko xam mu leer nañ ñuy lancer nag na appel wala boog ko double appel walaay peut-être daanelee appel déjà aux religieux ak ñëpp ñi nga xam ne neen dañuy dund diine diine mu leen tënk c'est vrai que ñaari kese moo mën a nekk ci wàllu diine ilif sa diine wala sa diine ilif la ñaari kese mën nekk amul ñetteel ku diineem ilif nag diine moo koy wax muy def moo koy tere muy bàyyi ñun diine moo ñu sant obligé ñu pour ñu taxaw temm aar li nga xam ne mooy dëggu yàlla bi ba pare aar ñi nga xam ne ñooy askan wi ndax sa dafa waxoon ne ki gën ci yéen moo ki ëpp njëriñ ci askan wi kuy liggéeyal askan bi koo koy sang bi ci askan bi dafa am ay référence prophétique yu ñuy wax xadis yu bëree bëri yoo xam ne dafa ñaax jullit bi pour mu a toog ci coin jàpp ñàmburam le musulman ne peut pas être neutre dans une situation bi xam ne kawoo mën na ci am fitna mën na see judd ndax al fitna naa itam sa sam neewoon na fitna mu ngi nelaw yàlla yee na koy ku koy yàlla rëbb na koy yee te dans le cas d'espèce fii au Sénégal kenn mooy yee fitna bi mu tudd Macky Macky Sall kese ak ay nitam ñooy yee fitna aujourd'hui Macky nag euh, Abbas na ko léegi man dama gis ne euh, li mu ragal lay defaate Macky moom kenn umpalewul ragal gi mu ragal kaso Macky toog na sax sukk jooy ne moom dugg kaso dee moo ko gënal ba sëñ bi wooteel ko ñaanal ko Ablaye Wade ñi baal ko bañ ko dugal kaso Ablaye Wade nangu koo baal ne du ko yóbbu kaso waaye comme que ay këyitam Ablaye daf ko téyewoon sëñ bi ne ko kon demal nga jëli sa ay këyit su suba mu ne ko Ablaye saay saay su ma demee daf may jàpp moom gëmul woon sax ba tey ne ko Abdoulaye da koy bàyyi donc quand nag Elie ça interpelle les Sénégalais quand on donne ce pays à des gens yi xam ne man laay woowee les parvenus des gens yi xam ne sans scrupule sans aucune valeur ay nit yi xam ne les moins capables les plus incapables euh, les plus indignes bu leen joxee dëkk lii kese moo ma nekk résultat bi dañuy foowee lu ñëpp bokk di jéem a toroxal gor yi di jéem a sonal nit yu baax ñi ndax ay baadoolo lañu ñun ñoo def erreur jox réew mi ay baadoo la muy Macky ñu mu àndal li nag jàpp naa ni du ñu war a corriger la ci at yi ñu jëm ndax dëwoon élection la nañ xaat bu baax a baax ni ñu war a organiser réew mi ak ban réew la ñu bëgg à partir de 2024. ñaareel message bi message bi xam ne pour force de défense sécurité yi la leen yëgal ne leen kattan bi ñu jox bi ñu leen jox ñoom muy pouvoir bi nga xam ne ñu leen ko jox pour ñu sàmm ñu aar ñu ñu jox leen ay gànnaay ñu téye ko gànnaay yooyu suñu ay dërëm la jar. arab dafay wax naan desewul dara ci baadoola ku jël sa alal ba pare la toroxal sa propre alal suñu bëggee toroxal sax dama jël sa alal boo ko toroxal ñu si waaye gànnaay ñun ñoo ko jënd armes yëg oto yi ñun ñoo ko moom bu leen ko joxee dénk leen ko ne leen aar leen ñu te ngeen sàmm ñu war ñoo xam ni waruñu topp décision bu injuste waruñu topp ordre bu manifestement illégal ordre yu bëri leen di jox ordre yooyu ordre yu jubul ndax tey rek maa ngi koy waxtaan ak sama benn xarit léegi Euh, ministre de l'intérieur mooy Antoine euh, Diome dafa wax bu doy suñ demee ba réew bi nga xam ne un ministre dafay génn di wax naan moom tamit pare na pour bind na testament am moom tamit pare na pour di nga xam ne kon yaa problème lii amateurisme dëgg la wala ñàkk jom kese la maanaam lu yéeme la ki xam ne la jox jumtukaay bi xam ne yow yaa war a dalal les parties prenantes dans un pays sérieux sax la ñu wax des ministères de souveraineté duñ ko jox n'importe qui ndax warul waxee n'importe comment ndax moom moo war a apaiser le jeu moo war a dalal les parties ba kenn ku nekk gis ni kii tëdd njaaxanaay ñëpp lu fi nekkee ministère de la justice ministère des affaires étrangères ay ministère de l'intérieur yi ñëpp commoo waru ko téye di ko diriger maanaam xale waru koo yor xale attanu ko ma Macky nag dafa delloo ginnaaw bu baax a baax Sénégal wax dëgg yàlla su may xool tey Sénégal euh, damay damay damay am tiis damay am tiis si yenn qualité dirigeant ñu ñuy diriger et ça nous interpelle ñun ñëpp nag ndax borom bi subhanahu wa taala dafa wax ne askan wu ne ñi muy yelloo kese laay di jox ci njiit ñu ñoo xaar suñu bopp ba tax ñu am njiit de cette trempe là njiit yi nga xam ne njiit yu ñàkk solo nii ñu ñoo taxawal fi ñu a taxaw dëgg-dëgg donc maa ngi ñaax askan yi wax dëgg yàlla ci lépp luy mobilisation euh, nañ koy topp mobilisation benn nit buñ ko xepp kenn ku nekk bu mu jàpp ni man mi suma demul euh, amul solo nit yi dem nañ lii kenn ku nekk daf ko war a def mbiru boppam jaamu yàlla la kenn ku nekk ci génn participer ci xeex pour injustice jeex ndax xeex injustice kese doy na jaamu yàlla mhm. toujours yonent bi sax dafa fàttali ne xelfu bi ñuy wax fu fudul te muy euh, pacte bu gën a am solo bu yonent bi sax defoon ci jamonoom yonent bi sax pacte boobu fekk na yàlla yónneegu il ilaver il avait la trentaine le message waaye gis na ni màq dafa amoon insécurité ak injustice ay ndaw ci biir màq tase toog waxtaan ñun kat ni ñuy opprimer les étrangers ni euh, ñuy opprimer euh, ñi nga xam ne euh, ay état ay esclaves lañu. ak agression bi fi am ak siif bu ñuy siif jigéen yi ñun di war nañu def benn comité bi nga xam ne dañoo war a veiller sur la cité sainte ndax lii waru fay am et ça sam il faisait partie de cette initiative là. ñoom ñu toog nekk ay jeunes ak ay ndaw ak ay mag yuy àndandoo di sàmm màq boobu yàlla yónneegu yoon bi sa sam kenn xamagul sax prophète Yonent sa sam wax na ci ginnaaw dundam ba mu demee ba jëm mag ba yàlla yónni ko ba mu nekk Médine dana ba wax ne kat ah man expérience bi ma gën a marqué bi ma gën a neex mooy xilful fudul bi ñu defoon ñun ndax on avait travaillé à sécuriser les gens on travaillait pour le bien-être de chaque personne mooy loolu expérience bi nga xam ne si c'était à refaire tey je vais le refaire donc Yonent sa sam jox nañu ko exemple nañu sonn pour ñeneen nii nit ku nekkoon nga xam ne sa bopp ak sa morom kenn la arab dafay wax naan ni ki fileeg eggagoo ci sooy woo sa mbokk ne ko ee eh, man ne na ko bëgg bëgg bëgganteegu leen jur bi dafa war a bëgg mboqam dafa war a jug xeex pour mboqam waruñu taxaw di xeex c'est parce que sama mbokk lañ jàpp Sénégal aujourd'hui dañu commencé familiariser ay compa ay ay combat da gis ki nga xam ne journaliste lañ jàpp journaliste yi génn pour taxaw ko su journaliste boobu suñu ko bàyyee journaliste yi demaat toogaat jàpp seen ñàmbur les mêmes combats continuent ni ñu jàppee journaliste boobu am na ñeneen ñu doon journaliste doon xeex ci combat boobu il nous faut fédérer ces forces euh, incha allah pour mën a arriver à bout de ce tyran kon qu'on nomme Macky Sall chaque fois mën leen moo raw korona moo gën a yées sida ku ñu war a xeex la xeex ko farata la. donc lii maa ngi ciy woo ñëpp ñi xam ne ay ustaas ñu ay may dañu taxaw temm pour yeewi dëkk bi ndax dëkk bi daf ñu soxla tey la ñu gën soxla donc maa ngi jégalu ci kàddu yi yéen ñëpp di nuyu ñëpp fi nekkoon waaw salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.